Euh, nekk juriste euh, euh, xam bu baax wàllum élection également bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau. waaw nee na Aïcha maa ngi lay fay di leen remercier aussi ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau Ndoumbelane bi di nuyu Sénégalais yëpp. di ñaan émission bi ñu commencé li ko commencé ci jàmm ñu ne ko ci alhamdulilah rabil alamin jul jëriñ ci pour sénégalais yëpp. Mmh. c'est important dinañ fi dalal également ku représenter euh, société civile euh, mu di euh, Abou Diallo moom itamit dina dina teew léegi ci plateau bi laata loolu ma nuyu également suñu ay chroniqueurs ñi ànd ak ñun tous les vendredis soirs Serigne Saliou maa ngi lay nuyu bu baax. merci Néné maa ngi lay fay. di nuyu sunu. invité yi nuyu Rigal nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV di commencer suma intervention rek ci ñaari tomb yu tuuti mhm. bi ci njëkk mooy euh, euh, le sort actuellement des travailleurs de l'hydraulique mhm. xam nga ne ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom forage bu panne Sénégal ñoo koy liggéey mhm. wante dañu nekk situation bu précaire boo xamante ne nii depuis plus de vingt ans am na ñoo xam ñu ngi liggéey amuñu sax benn yi amuñu mhm. yi mu nekk lu xam lu doy waar c' est anticonforme aussi avec vraiment le code euh, du travail. Mhm. présentement nii sax ñoom dañu ne dañuy bëgg a dem mouvement de grève mais ñooñu fi nekk suñu grève jàppal ne village yu bëri Sénégal dinañ ñàkk ndox. Mhm. te loolu je crois que du lu gën donc il est temps que aussi seen ministre bi wax ak ñoom tuuti. ci en tout cas li nga xam ak présentement moo leen dal deuxième bi day jëm ci ñi nga xam aussi ñoo nekk dans l' administration pénitentiaire parce que ñoom tamit fan yi ci ginnaaw yëglu nañ bi ñu déggee ne y' a beaucoup de corps de administration qui ont bénéficié vraiment de en tout cas d' augmentation ñoom dañ leen cee beddi mu nekk loo xam ne aussi lu doy waar étant donné que ñoom nag amuñu droit syndiqué wu laaj na aussi ñi nga i euh, en tout cas jëwriñ ñu taxaw ba pare jëmmal lijjanti li nga xam ne tey moom mooy seen i jafe-jafe. Hmm. voilà loolu daal la moon vraiment ci lu may wax ci ñaari koor yooyu. c'est important alors euh, di nuyu également euh, Ridial l'homme de Rufisque Omar Faye hmm. ngi lay ziar. delloo ziar. Hmm. di nuyu invité yi fi nekk yëpp. di nuyu di la nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan saa yu àjjuma jotee. ñu nekk seen petit écran di ñu seetaan. Mhm. di jaale Cheikh Oumar. Mhm. Mhm. am na dafa ñàkk waajuram bu góor. di ko masawu. di masawu famille am leen wax ki fi jóge yàlla na ko yàlla xari àjjana. amiin amiin. nu wax nu lañu yàlla mayaat ma wax ci jàkkay Tëngéej bi nga xamante ni ne en 1844. mu nekk ci état de vétusté très avancé ñëpp xam ko gannaaw bi président recevoir une délégation rufisquoise dirigée par Pala Mbeng ak imam Bamar ak euh, Adama Sarr bi sama nijaay ak une autre délégation le président du conseil départemental jël na fa ndogal ne jàkk ji ou ñu raser ko ñu defaraat ko wala ñu xool comportement bi li ñu fi bàyyi fondation bi dafa baax ñu jéem a xool nan la ñuy garder architecture bi defaraat ko loolu nag mbégte waate nga yëpp la ñëpp kontaan nañ ci délégation bi war na fa ñëw incha allah dans la semaine avec ses techniciens ñu ñëw xool nan la ñu mën a def pour jumaa jooju nga xamante ne mooy sunu jumaa ji gën a mag ñu defaraat ko loolu nag ñu ko ci gërëm di ko sant franchement. Mhm. beneen bi mooy poste finance poste bii. nit ñi dañu am seen xaalis dem di ko jëli ñu ne leen xaalis amul ça pose problème. Hmm. ak li xew a jot mais poste finance dafa nekk banqueroute wala qu'est-ce qui se passe ba nit ñi nga xam ne dañu am seen xaalis mais ku fa dem rek ñu ne la non non tey xaalis amul kenn versé wul kenn joxewul li xaar am nañu un mois deux mois ngi nii ñu war a jënd ay marchandises ñii ñu war a récupérer seen xaalis mënuñu am. mais il faut il faut qu'on règle sa problème là problème bu poste finance nag parce que nit ñi mënuñu nekk situation yu difficile à chaque fois bu ñu demee ñooy leen amul xaalis amoo xaalis sax yow d'accord waaye ki jël xaalisam jox la ko nag bu ko soxlee as la nag da ko mën a jël mais ku fa dem mënoo ko jël ça presque des mois nen na yooyu nag ñu ngi ñaan nguur gi mm-hmm. ministre des finances ak ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ñu jël ay disposition pour que post finance ñu xool nan la ñuy régler parce que ñi nga xamante ni ñoo jël seen xaalis ñi jël seen xaalis alawal di ko fa def ñu ngi si situation bu difficile te sonn nañu nañ leen dimbali véritablement ñu xool ñoom nañu nan la ñuy rentrer dans leur fonds hmm. am na ay femmes ay commerçants yoo xamante ni dañu war a jënd ay marchandises ñii dañu war a def opération tabaski ñii dañu am ay soxla war ko faj mënuñu ko vraiment loolu cri de cœur la ñi nga xamante ñoo jël seen xaalis dugal ko biir poste finance nañ leen jox seen xaalis parce que metti na ci ñoom trop et c'est difficile merci alors euh, di rappeler rek ni que Cheikh Omar euh, moom itamit dina teew plateau bi euh, léegi lay doon incha allah di wax aussi parce que sànq ñu ngi doon euh, accueillir fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor Serigne Mahi Ibrahima Niass mu nekk quand même un khalif qui fait la fierté euh, de tout un peuple hein, par rapport justement ak euh, réconciliation bi ci diggante euh, peuple soudanais bi mu nekk une fierté pour le Sénégal pour euh, toute l'Afrique également euh, sànq lañ ko doon teeru fii ci aéroport Sédar Senghor mu nekkoon bés bu rëy pour tout la communauté di jaar di nuyu également abu Diallo maa ngi ko doon wax moom moo fi teewal société civile ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau. nee na ay seen ñu ngi jéggalu ci retard bi. Mhm. di am mbégte di leen fekk si plateau bi di leen nuyu di nuyu ñi nga xam ni baaxoo nañ saa sune di di nu Ndoumbelane di jaare si suñu buntu Tiwaawoon nuyu soxna Fatou Sida Baax mu nuyul ñu Serigne Mbaye si Abdou. Mhm. mu ñu la xalif général nuyu Serigne Moussa Nawel suñu buntu Touba mu mhm. nuyul ñu la général Serigne Mountakha Cheikh ndokkeel ñu Cheikh Mahi ci taranga bi mhm. nuyu église bi cardinal di nuyu sénégalais yi baaxu di si nu mbelaan ak ñi ñu fekk ci plateau bi yëpp c'est important alors euh, je le tout à l'heure tey dañuy waxtaane waxu élection législative yi alors euh, dañoo génn ci ay investiture foogoon ne que tourné nañ cette page investiture ak frustration yu mu jot a jur euh, mais euh, bi liste yeewi askan wi génne ba ñu tas ko ci tout la place publique ñu gis benn communiqué bu FDS Les Guelwaars génn carrément ñoom wane seen déception wala sax seen frustration par rapport ak investiture yi loo xamante ne euh, peut-être euh, ñu bëri ci biir yeewi askan wi ñu ngi koy ñaawlu euh, parce que suñu waxee waxu investiture certes naam mën na am ay frustration mais frustration yooyu dañ ko wax a peut-être contenir ci benn cadre naka ngeen arrivé à cette frustration boobu ngeen décrier par rapport ak li ñu amaloon ci investiture yi àndu leen ci investiture yi nu mu demee jërëjëf Néné Aïcha yaakaar naa ñun li ñu fësal weesu na simplement un sentiment de frustration. Mhm. je pense que c' est beaucoup plus profond que ça. y' également ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeeyu askan wi. mais également les sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan jëm a comprendre réellement ce qui se passe. Mhm. nee na Aïcha yeewi askan wi dafa nekk. coalition boo xam ni sénégalais yi ñoo ci am yaakaar. Mhm. nekkul moomeelu benn nit. nekkul benn moomeelu parti politique. waaye sénégalais yi ñoo ci gis seen bopp loolu moo waral ñu réaliser des résultats honorables ci élection locale yi ñu jugee ñun ay problème mu principe la ñuy posé bi ci njëkk mooy dañu woon Yewwi Askan Wi dafay dox ci démocratie nee na Aïcha ma lay yëgal ni fan yi yëpp gis nga ay lider di gën di def ay conférence de presse di même annoncer ay manifestation te décision yooyu amul benn organe bu yeewi askan wi boo xam ni moom moo ko décidé donc loolu poser problème mu démocratie beneen bi également mooy bi ñuy wax ci investiture yi leader yi dañ jëloon engagement ni investiture yi dafay lalu ci ay critères lan mooy critère bokk na ci compétence bokk ci représentativité su ma waxee compétence dafa nekk lu am solo ndax 1960 ba léegi Sénégalais li ñu constaté mooy assemblée nationale dañ ko jàppe simplement mhm. benn chambre d'enregistrement des décisions du pouvoir exécutif dañu jàpp ne ñun assemblée nationale kat mhm. dafa war a nekk le réceptacle des doléances populaires coono askan wi foofu lañ ko war a jooyee donc critère compétence ñu d'accord ci deuxième critère wax naa ko mooy représentativité bu ñu nee représentativité mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy investir il faut faudrait que ñu wane une certaine capacité à faire gagner la liste man ay fee laay wax critère représentativité moom lañ teg dakaar ñu investir Barthélémy Dias tête de liste parce que yàlla def na élection locale yi ñu jógee moom moo conduiroon la liste à Dakar gagné. ñu dem Rufisque docteur Oumar Cissé le maire de la ville moo jiite woon également la coalition dem gañe moom lañ tegaat nga dem également Guédiawaye oui. Ahmed Aïdara le maire de la ville moom lañ reconduire exemple yi mën naa ko multiplier ça veut fenn foo dem ci Sénégal mhm. li ñu remarqué mooy les maires de ville ñoom lañ reconduire donc vous auriez voulu que mu nekk pareil aussi à Thiès du problème bu ay poste simplement nee na Aïcha docteur Babacar Diop mhm. ku xam son parcours da nga xam ne du ay simple poste moo ko yitteel parce que yàlla def na il y a de cela quelques semaines. mais à chaque fois que je me dégg euh, ay frustré euh, di wax euh, c'est c'est le même discours du question de poste moom moo tax ñuy ñuy ñuy wax wala du question de poste moom moo tax ñu mer peut-être question de nu ñu ko defee question de qui moo dis décidé à la place de diw mais mais au fond est-ce que du problème mu poste concrètement parce que est-ce que su amoon ñoo xamante ne dañ leen teg benn place bu privilégié dinañ leen dégg tey jii ñu coow. xam nga man ay fee wax dama lay expliquer que ni partout au Sénégal ñi nga xam ni ñoom lañ investiroon ci local yi ñu gagné ñoom lañ reconduire le maire de Thiès c'est le seul boo xam ne dañ ko mettre totalement à l'écart amul également benn responsable bu nekk FDS les Guelwaar ñu investir ko jox naa la exemple Babacar Diop pour firndeel la ni du ay problème poste rek ci biir FDS am na keneen koo xam ne déposé woon na sa candidature moom c'est le secrétaire administratif c'est l'administrateur général du parti ñu koy wax docteur Mamadou Bodian mais bu doon ay problème poste la moom il était enseignant à l'université de Floride aux États-Unis mm-hmm. mu bàyyee ko fa ñëw parce que jàpp na ni c'est en étant au Sénégal que lay mën a apporter sa contribution au projet Guelwaar mais nga yaakaar ni kooku renoncer mhm. à un poste d'enseignant à l'université de Floride nekk ay consultant pour des organisations internationales mhm. nga yaakaar ne ay poste député yitteel na ko non non c'est pas ça l'essentiel ñun li ñuy wax mooy mhm. exigence bi ñu am par rapport ak Macky ni nga xam ne moom la yore réew mi le même niveau d'exigence moom lañu war a am. par rapport ak ñi nga xam ne da ngeen constaté benn manque de démocratie au au sein de Yewwi Askan Wi. non seulement il y manque de démocratie mais nee na Aïcha yi mbooleem critère yi nga xam ni moom lañ définir woon ni investiture yi ci la war a lalu mën naa li limal un à un tous ces critères la dañ ko ñi nga xam ni. Mhm. ñoom ñoo doon constituer les listes dañu jël compétence sànni fële jël représentativité sànni fële li leen soxaloon rek mooy seen ay ñoñ voilà le problème qui pose moo tax ñun au niveau de FDS les Guelwaar suñu position elle est très claire Yewwi Askan Wi projet la mhm. duñu ñu seetaan kenn di ko def un instrument de domination Yewwi Askan Wi Sénégal yi ñoo ko moom donc war nañ ko préserver ba yéene bi nga xam ne moom lañ am ñu mën ko réaliser pour le bonheur de Sénégalais alors Amadou suñu déggee tey ji euh, Serigne Assane Kane wax Euh, on a l'impression que lu ñu doon bañ tey jii ci Benno Bokk Yaakaar moom la ñu retrouver en quelque sorte au sein euh, de de Yewwi Askan Wi mu di manque de démocratie yu ñu yàgg décrier au sein des des des, des partis politiques euh, d'une autre part benn groupe ñooy définir